liñ fi dajale woon tey dañoo ñëwoon pour euh, élaborer liñ wax plan de développement communal manam ñu tok xalaat ci at juróomi at yi di ñëw Sébikotane nan lañ ko bëgg euh euh liggéeyee nan lañ koy nan lay démé donc lolu moñ fi andi won tay ñu and ci ak agence régionale de développement bu Dakar bi nga xamné moy jappelé commune ci walum technique hein ci liggéey bobu waye tamit boole ci askanu Sébikotane yépp ak partenaires yi nga xamné tamit ñu ngi liggéey ak euh, si commune bi moy euh, les services de l'État les industriels ak les acteurs communautaires ñom ñep and nañu tay pour tok discuter ci plan bi lancé ko. li tax nak ñu boole len ci parce que dañu bëgg que plan bi bu yeggee ñëpp euh, def ko momel hein motax ñu boole ci ñep dès le départ. pour que ñu bokk ci conception bi ba nga xamné bu plan bi sottee ñep dinañ xamné li seen yëfu bop la loolu motax ñu def ci démarche inclusive et participative wante euh, tamit euh, li war a tax ñuy def euh, planification tey Sébikotane fi mu toll ci Sénégal dafa am solo ndaxte voie de communication yi nga xam ne yëpp day dugg Dakar fii lay jaar Sébikotane mooy raay bu njëkk bi mooy train bu bees bi TER bi mooy route national bi muy autoroute à bi. ba pare Sébikotane dafa jege pole urbain bu jam ñaajo bi nga xam ne mu ngi mu ngi màgg Sébikotane jege tamit pôle urbain bu Lac Rose Sébikotane jege pôle urbain bu Daga Xolpa donc.

Euh, taxawal nañu comité élargi de planification boole ci ñëpp ñi nga xam ne ay acteurs lañ ci commune bi waaye tamit euh, euh, ARD ànd na ci ak ñun sous préfet tamit ànd na ci ak ñun vraiment pour que ñu defar plan bu mucc ayib ak tamit ñu mën ko mettre en œuvre te ci mise en œuvre boobu tamit woo nañ ci ñëpp ñi nga xam ne ay partenaires commune bi lañu pour ñëw ñu jàppale ñu ci ndax loolu tamit dafay laaj ay koom-koom yoo xam ne ah il faut que ñu wuti ko am nañ yaakaar ne ak partenaires yi fi jot a ñëw yëpp buñ ci jàppee plan bi du yem ci defar ko rek tëgg ko mais dañ ko tëgg ba pare jëmal ko incha allah.